bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma allimna maa yanfauna wanfana bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci wàllum xarale gi jaawo jàllo mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon buñ doon taxaw ak yéen ci waxtaan ba fiy jaar ci waxtu wi ñu ngi taxawoon ak yéen. ci miisaax ba yàlla suñu borom tabaraka wa taala dëxalanteeg waa banu israil tey bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu war a jokk ci bunt boobu weneen bunt bu bees lu jiitu ñuy andi bunt bu bees bi ñu bokk di fàttalanteeg yéen ci waxtu wi xéewalu yàlla ba ñu yàlla lañ doon jëfandikoo ci waxtu yu ci ginnaaw te muy nelaw nelaw boobu yàlla buur bi tabaraka wa taala xéewalal ñu mu doon kado ñeel doomu aadama yi wala mbindaafoonam yi ki yàlla tànn ci askan bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa moo ñu jox tegtal tegtal bu matale tegtal tegtal boo xamante ne keneen ku moom xamu ko te buñ ñu ko naree jox duñ ñu ko mën a jox ndax dakaa xamul kon moom mi ko yàlla xamal sallallahu alayhi wa sallam moo ñu joxoñal tegtal bu toll ni xéewalu yàlla bu toll ni nelaw képp kum ko yenkeewal képp kum ko jàppandalal bam la waat sa ruux war nga kaa sant war ngaa ñaan azkaaru istiqaaz min an nawm ba tax na noonu nga nar tàmbalee sa bis noonu nga war a duggee ci sa bés ba nga xamante ne yàlla wërsëgal na la ngir nga mën a dund bis boobee yonentu alayhi wa sallam daf ne la ginnaaw bu la yàlla mayee xéewalu nelaw ba nga nelaw mu may la occasion bu toll ni nga yeewu ci nelaw bi encore nee na la la war yow jullit bi mooy nga tudd baat bi nga xamante ne moom nga war a sant yàlla te mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur moo ne da nga war a tudd baat bi ne mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel na yàlla buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man la nga xamante ne mooy dee bu ndaw te mooy nelaw te tamit wa ilayhi nushur ci moom yàlla lañuy delloo keroog bés pénc bu ñu taqale koog dund bi ndax nelaw bi ñu tàmm di nelaw ci kaw suuf si muy ci àddina si mooy nelaw di yeew di doxi sa soxla waaye keroog gannaaw bu ñu jógee ko ci nelaw bu mag bi di dee bu ñu ximbale ko dinañu gis ne ndekete suñu nelaw bi ñu ngi yeewoo ci keppaaru borom bi subhaanahu wa moo tax nga déggi ci njeexantalu ñaan bi wa ilayhi suur yal nañu yàlla sàmmloo kàddu gi ñu di ko baamu saa ñu ñu yeewoo suñu nelaw su ko defee ñu di bindal yiw comme nukk suñu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ba tax na sant yàlla boobu nga sant borom bi tabaraka wa taala nga suubu loolu ci sa bés bi nga war a dund am wenn boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah moom it mu daal di la orienté ci benn yoon bu neex jaar benn tegtal bu neex a bi tax na mu ne la yow doomu aadama bi ibnu aadam innama anta ayyamun nee na yow doomu aadama bi xamal ne bis yay jaar ci sa dund bi ñuy jaar di jàll di wéy di dem loolu la fi taxabaay ba tax na xamal ne kullama zahaba yawmun bépp bis ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduka am na lu mu yóbbaale ci sa nekkin am na lu mu yóbbaale ci sa dundin am na lu mu yóbbaale ci li nga xamante ne moom nga nekkee ba tax na yow doomu aadama bi démb aaya bi ñu leen doon jàngal ca suuratul baqara di miisaaq di pacte di dëxalante ba yàlla dëxalante woon waa banu israil jikko yu noobul yooyu moo ne bu ñu jaamu yàlla du kudut bu ñu jaamu dara ku dul yàlla bu leen jaamu leneen ku dul yàlla ne yàlla dong nekk buur bi ngeen di jaamu ngeen bañ koo bokkaaleeg dara ngeen bañ koo bokkaaleeg lenn ñaareel bi borom bi ne leen na ngeen rafetal jëmmale ko ci seeni ñaari wuy jur ñi nga xamante ne ci ñooñu ngeen jaaree ba gane si àddina ñetteel bi nangeen ngeen rafetal jëmale ko ci mbokk bu jege bi moo xam mbokk la ci meen moo xam mbokk la ci geño moo xam mbokk la ci doomu ndey walla mbokk la ci doomu baay walla mbokk la ci la yàlla boole ci seen néegu mbokk borom bi ne na ngeen rafetal jëmale ko ci ñooñu rawatina jamonoy tubaski ba ñuy waaj a jublu si nii képp ku nar a rafetal jëmmale ko ci sa mbokk ci anam boo koy mën a defee yàlla nee loolu moo ma génnal nee rafetaay bi nag jekkal beeg yéwénal bi na wéy bi léegi ba laawaale sama njaboot yama àtti si ñoom ñu doon jirim waaye rafetal beeg jekkal beeg yéwénal bi na laawaale ba laal sama njaboot ñama àtt si ñoom ñu doon miskiin waaye nag jomtuwaay yamaleen leen poosel ci seen biir wopp te mu doon seeni làmmiñ na ngeen ci wax lu yiw jëmale ko ci nit ñi te ngeen sàmm wante jokkalekaay bi nga xamante ne moo leen di jokkale ak man mi di seen borom di julli ngeen sàmm ko ci waxtu ya ca béréb yañ koy defee waaye nag koom-koom ba ma leen xiiwalal ngeen yore lu ne gàññ la ma ci soob mooy ngeen tibb si as tuut jëmale ko ci sama njabooti jama àtt si ñoom ñàkk mooy azakay alal ba ma moom ci seen alali na ngeen ma ko joxal sama njabooti waa banu Israil nag gannaaw bu ñu dixalantik yàlla dixalante bi ni mel dañoo jalgati mbir yi nekk ci li leen neex defuñu dara lañu sarte wante yàlla borom bi ne ah ëllëg bés pénc mbugal ju tar ba leen di xaar nag loolu laa moytandikuloo yow yonentu bi ak say xeet bu leen jalgati accord déxalante bi ma déxalante waa banu Israil gannaaw si ñu jalgati ko yenn bu leen def nii bu mel noonu loolu moo nekkoon suñu buntu démb tey si kàttanu yàlla incha allah bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu nar si toftal beneen buntu bu bees yal na ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmmi nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu war ubbi xët bu bees di xadiisu muaas bun jabal radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal yaa muaaz wallahi inni la uhibbuk usiika yaa muaaz laa tad'anna fi duburi kulla salaatin an taqula allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatik xadisun saxiix axrajahu albani fi saxiix aljaamia mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis baa ngi ni xadis bu jara waxtaanee suñu penc wi xadisu yonente waa ngi nii xadis bu jara bàyyi xel ñu partager ko ñu narkaa jëfe su suñu dund wi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ko kenn ci àndandooraam yu màgg yooyu di Muaas bun Jabal yan na ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dakaane yaa Muaz e yow Muaz wallahi maa ngi gën ci yàlla ne inni la uhibbuk Muaz maa la sopp yonent bi moy wax ak Muaz allahu akbar Muaaz am na sens wallahi Muaaz am na sens yonent bi ne Muaaz maa ngi gëñ ci yàlla ne yonent bi xattaa boo gëñut xam naa xam nañ ne bëgg nga sa saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yonent bi ne yaa Muaaz e yow Muaaz wallahi gëñ naa ci yàlla ne inni la uhibbuk man ku la sopp la ba tax na sopp boobu ma la sopp usiika yaa Muaaz maa ngi lay laaye biir di la dénk di la jox nasiha di la conseil la ma lay conseil mooy lan képp ku bugg a xam la yonentu bi dénk Muaaz ndax ñu topp ci Rewmi FM 97.5 képp ku bëgg a xam la yonent bi conseillé dénkaane la mu dénka Muaas nasiha ba mu nasiha Muaas képp ku bëgg xam nanga ñu topp ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ba fi jaar sallallahu alayhi wa sallam ne wallahi inni la uhibbuka ya Muaas ay Muaas man maa la sopp sopp bi ma la sopp bëgg bi ma bëgg tax na usiika yaa Muaaz ma lay jox ndénkaane bi ndénkaane bi mooy lan nañ leen dëkk suñu ndabu xol ak suñu ndabu nopp yonent bi yekkal ñu la mu dénk Muaaz bun Jabal radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu feddalee cofeelam ci sahaabi bi di Muaaz bun Jabal da ko ne ma ngi lay dénk yow Muaaz laa tad'anna fi duburi kulli salaatin ngalla waay bul musa bàyyi bul musa tayyi bul musa yonjox bu ko musa ignorer ginnaaw bépp julli farata bul ignorer la ma la bëgg wax si ni bul tay di wax la ma la bëgg a wax si ni bu ko musa wacc nga bañ kaa def li ma la bëgg wax si nii moo tax mu ne ko laa tadaan bul musa bay fii duburi kulli salaatin ci bépp ginnaaw farata bi nga joxe bépp julli farata boo joxe bul musa bàyyi la ma la bëgg a wax ni mooy lan an taquula ngay wax ne allahumma ainni ala dikrika wa shukurika wa xusni ibadatik sallallahu alayhi wa sallam lii la wax muaaz bun jabal radiyallahu an allahu akbar lii la bi wax Muaas bun Jabal radiyallahu anhu mu ne ko bépp julli farata boo joxe kalla waay bu lu mu bay di wax ne allahumma buur yàlla ainni maa ngi ñaan yàlla nga ma jàppandalal ala dikrika ma di la fàttaliku saa su ne ma di tudd saa su ne wa shukurika walla yàlla yàlla nga ma jàppandalal ba léegi ma di la sant ci xéwal yanga ma defal saa su ne yàlla bi léegi ma ngi ñaan yàlla nga ma jàppandalal may rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla ya nga nañ la ko jaamoo yàlla bu ma ko defee sama sago yàlla bu ma ko defee comme na ma ko mënee walla la ma ko xelaate waaye yal na nga ma jàppandal ma defee ko comme noo ko bëggee donte dinaa ci lott walla nga jàppale ma ma defee ko comme naka sa yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ndax yii nga ñaan yàlla ngir mu jàppandalal la ko nga defee ko nii keneen kooko ñaan du ko mën yorul kàttan amul xam-xam bi amul sañ-sañ bi kon doo ko ñaan kenn ku dul yàlla moo tax yonent bi ne Muaaz bëgg bi ma la bëgg sopp bi ma la sopp ba tax na ma lay jox ndénkaane ju toll nii bul musa bàyyi di wax ci bépp waxtuy julli ba nga julli ba noppi di wax ne allahumma buur yàlla buur bu màgg bi buur yàlla yow mi yore nguur ju mat yow mi yore nguur gu màgg bi yow mi sa nguur matale yow mi soxlawul dara ci say mbindaafoon te ñépp am soxla fa yow buur yàlla bu toll ni ma lay ñaan a inni yàlla nga ma jàppandalal jàppandalal bi may sàkku fa yow nag ci yow dong la nekk fa ma bëgg nga jàppandalal ma ko nag ci yow dong la nekk yaa yore kàttan bi jàppandalal bi may sàkku ci yow la nekk yaa ko yor ba tax na maa ngi lay ñaan a inni yàlla nga ma jàppandalal yàlla nga ma yéwénalal ala dikirika sama làmmiñ bi di la tudd saa su sama xel bi di la fàttaliku saa su ne may gis say kawtéef di gën a waaru ci sa maggaay yow yàlla ainni yàlla nga ma jàppandalal ala dikrika ma di la xalaat ma di xalaat say kawtéef waaye may tudd say tur yu magg yi nga xamante ne képp ku ko tudd mooy ne am na benn médicament ci médicament yay faj jàngoro ya nekk ci moom ndax tudd say tur mooy médicament yay faj jàngoro siis tudd say tur mooy médicament yay faj jàngoro soxor tudd say tur mooy médicament yay tax mucc ci nit ki ci seytaane tudd say tur mooy la nit di fàggoo tiyaabo ak yiw yu nga xamante ne munu koo fàggoo ci leneen lu tudd say tur yu sell yi subhaanallahi amma yushrikuun laa ilaha illa ant wa natuubu ilayk xeetu bakk yàlla yi xeetu delloo sa jëmm ci yàlla xeetu sàkku njéggalaakoor fa yàlla lii mooy la Muaaz ne mu koy ñaan fa yàlla ngir mu may ko mu di ko saxoo saasu ne moo tax mu ne ko bépp waxtu yu julli del ñaan yàlla ne ko allahumma buur a inni yàlla nga ma jàppandalal yàlla nga ma yombalal ala zikrika ma di la fàttaleku di la tudd saa ne waa yàlla nga ma jàppandalal bi léegi wa ma dila sant sant la xéewal bi ma defal ma doon doomu aadama war nga ma mën a bind ma doon bonoon bindaa foon bu wuuteg doomu aadama kon doomu aadama bing ma def yàlla ma la ci sant wa shukurika bi yàlla nga ma jàppandalal ma bokk ci sa jaam yalay sant nga boole ma ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla nga ma jàppandalal ma di la sant ma bokk ci saxaaba yi nga xamante ni ne dañoo dundandoor ak yenantu bi bi léegi yàlla nga ma jàppandalal ma di la sant ci xéwal bi nga ma defal ma bokk ci xeetu rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla bi léegi ma lay ñaan yàlla nga ma jàppandalal wa xusni ibadatik yàlla nga ma jàppandalal may rafetal xeetu jaamu yàlla yang ma sant ni nii laa la ko war a jaamoo xawuma ko mënuma ko duma ko mën a matale comme noo ko bëggee waaye sama kémte lay kàttan lama ci war a def yan na nga ma ko jàppandalal xadis bi xadis bu wér la axrajahu albani albani ma ko génne mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot te war a mën a déggee ci maanaa xadis bi maanaa yu bari te am solo lool waaye ñu géem a góorgóorlu tënk ko rekk ci waxtu bu gàtt bu ñu cëralee ci waxtu wi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin ñu gis ne keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ngir mu jàppandalal la lank ñaan ni du ko mën kon ñaan bi kenn du ko ñaan kenn yàlla dong képp rekk kott lañ koy ñaan ndax moo ko yore moo ko man sañ-sañ bi ci moom la nekk kon boo ko ne maa lay ñaan yàlla nga ma jàppandalal ma di la tudd saa su ne di la fàttaliku saa su ne bu la ko defalee mucc nga ndax keneen ku moom du la ko mën a defal gis nga képp ko xalaatu di yàlla yaa ngi xelaat leneen lu wuteeg la nga war a xelaat ci kawteefu yàlla waaye képp ku tuddut yàlla yaa ngi tudd leneen lu wuteeg la lay fagguloo bàkkaar waaye nag képp ku yàlla jàppandala lut nga di ko sant a ah, yaa ngi sant leneen lu wuteeg sant yàlla ba nga war a def ndax moo ne ñu ne ci téere bu mag bi yàlla suñu boroom moo ñu ne ci téere alquran la in shakartum bu ngeen ma sante ci xéwal yamaleen defal la azidannakum dinaa ko yokk dinaa ko gëna a jebbil mu gën a yokk kon sant yàlla ci xéwal yam la defal yow jaam bi rawatina yow jullit bi day tax yàlla yokk la xéwal waaye ñàkk kaa sant tamit loolu leneen la waaye loolu taxu ñoo jóg lañu tax a jóg mooy sant yàlla ci xéwal yi yam ñu defal ñu di ko ci sant di manifester cant boobu ñu di ko manifeste ñu di ko wone bu dee wax la ñu di ko wax bu dee jëf la ñu di ko jëf borom bi nee na bu ngeen defee lii ma yokk leen sama xéwal waaye bu ñu jëlee aaya bi continuer na nee na wala in kafartum bu ngeen weddee bu ngeen jalgatee xéwal yamaleen xéwalal ngeen weddi ko jalgati ko xam leen ne inna azabi la shadid sama mbugal dafa tar képp ku ma mbugal sama mbugale nga xam ne man yàlla maa mun mbugal waaye laata ngay mos mbugalu yàlla te mu ne la boo ma sante ci xéwal yamala defal ma yokk la moo ne sant yàlla ci xéewale ngir mu yokkul ñu alhamdulillahi ala kulli haal walhamdulillahi bi nicmatil islaam ñu ngi sant yàlla di sant yàlla ci bépp anam ba dogal si ñun waaye ñu ngi koy sant tamit ci xéewal bu ñu defal ngir ñu doon julit kon bu la yàlla jàppandalelee nga di ko sant bi ci façon bépp xéewal yam la xéewalal loolu day tax yàlla jébbil la yokkal la la nga xamante ne mooy xéewal ya nekk fa moom waaye bi léegi yonent bi ne Muaaz ne ñaanal yàlla mu xéewalal la mu jàppandalal la nga di ko jaamu kom nim la ko sante nga rafetal ko jëkkal ko kom nag ko yàlla santaane moo tax ñaan bi jeexee wa xusni ibadatik xëytu jaamu yàlla ya ngay jaamu yàlla ñaanal yàlla borom bi tabaraka mu yombalal la ko mu jàppandalal la nga defee ko comme nim ko bëggee nga defee ko comme ni ko yàlla santaane subhaanahu wa taala ndax mooy buur bi nga xamante ne bu la jàppandalalee lanka ñaan ni amul dara li ngay teg ci xel di ko jëf doo jëf dara ci xel danga koy teg ci xam-xam bu la jàppandalale nga di ko sant di ko tudd di ko xelaat di rafetal xeetu jaamu yàlla yaa koy jaamu mais lépp ci xam-xam lay tegu ndax dangay ngay gëstu nu ñuy tuddee yàlla yan xeetu tudd yàlla la yàlla yoonal ci sariatul islaam ngir ñu di ko tudd nga tànn yooyu di ko tudd su ko defee képp ku la fekk ngay tudd yàlla ci anam woobu bu la nga ne ko yàlla suñu borom lii la ne nañ ko tuddee nii ku la fekk ngay xalaat yàlla di bàyyi xel kawteefam bu la laajee li nga nekkee nii mooy lan nga andil ko dalil texte bi num ko andee nga andil ko noonee ku la fekk anam wi ngay sant yàlla bu ni ngay sante nii yàlla luy sa tegtal luy sa dalil nga andil ko fekk ne yàlla moola la jàppandalal nga di ko fàttaliku ci anam bu dëpp ak njàngale yonent bi yàlla moola la jàppandalal nga di ko tudd ci anam bu dëpp ak njàngale bi waaye yàlla suñu borom bi léegi subhaanahu wa taala moo jàppandalal nga di ko sant anam bu dëpp ak njàngale bi waaye buur yàlla tabaraka wa taala bi léegi moo la jàppandalal nga di rafetal xeetu jaamu yàlla yaa ngi jaamu mu dëppoog ak la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa mbokk yi yan nañu yàlla may dégg ak topp xadis bi la muy wundu yan nañu ko yàlla wërsëgal waxtaan bi jeexul dafa fekk ne dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal bërëb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan ñuy ñaan yàlla suñu boroom an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana ki ngeen àndal waxtaan bi mooy Ibrahima Dramé ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bu mag bi di jaawo jàll jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umuurina allahuma ya rabbi ixfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu